Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with me Saba. dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Miss ba leçon bi nag dafay aju ci ñaari baat yi wala ci benn baat bi wala ci waxin yi nga xam ne mën a nekk ñaar te dégg nii benn lay nekk muy it muy lan mooy it bi nga xam ne equals that ban it mooy tolloo ak dat ci anglais dina nekk lu yomb ci boo xamee it liñ ci jublu maanaam ci personal pronoun yi waaye dina nekk lu jafe bu fekkente ne yaa ngi bëgg concentré wu comprendre maanaam lépp luñ foo déggee it rek nga bëgg xam lan lañ ci jublu bu dee noonu nga koy dégloo dina xaw a nekk lu jafe si yow pour nga comprendre lan mooy it mais dinañ ko leeral ci biir ñoom ñaar nan la ñuy mën a bokkee maanaam. France bi jël it nan la mën a jëlee daat ak lan lañ si jublu incha allah ci leçon bi di la fàttali bu fekkee abone ko te nga bëgg jàng anglais mën nga abonné si chaîne bi niki noonu bu amee solo mën nga ko partager ak keneen vidéo bi ok bu ñu indee yenn exemple ci ñun ñaar ni ñuy toppalantee xam nga buñ ne daat mooy lële ci dégg-dégg lële nga xamante ni dañ koy joxeñ it nag mooy mbir boo xam ne comme niñ ko jàngi woon ci personal pronoun ni lépp loo xam ne nekkul nit bu dee benn nombre bi nga si jublu rek it kay wax léegi it boobu nag barab bi muy jël daat da koy jël diis da koy jël waaye li ci gën a bëri nañu jël daat jàngat ko te bu paree nga bàyyi xel xam ne fii daat war a nekk bu dee lu ñu jege loo xam ne mën nañ ko laal diis lañ fay jëfandikoo léegi kon ñu dencaale côté boobu bu ma daat would be mooy doon na nekk après nag ma doog a wax ci lan laa si jubloo wala ma ne it would be maanaam doon nekk ba léegi léegi ci bi ñuy wax ci mbir yi maanaam ci yëg-yëg yi ci gisin yi ci programme yi ci xew-xew yi ci événement yépp bu ñu koy jëfandi bu ñu koy wax ci anglais it lañuy jëfandikoo exemple ñuy wax ba ci kanam nga ne waaw loolu moom neex na di wala nga ne loolu baax na de dégg na ma that is good léegi that is good that boobu lan la remplace mooy ci li ngay wax maanaam bu dee anam la bu dee jëf ci weesu woon bu dee ci gis-gis bi la bu dee ci dégg-dégg bi la that boobu loolu lay remplace maanaam that's good wala that's nice au lieu ngay wax tamit that's good wala that's nice mën nga wax ne waaw it's good wala nga ne it's nice moo tax ma ne la it bi moom ak date bi ñooy ànd mën nañoo ku nekk mën na ñëw si barabu moroomam maanaam nga ne ma waaw that's a good idea loolu moom xalaat bu baax la de nan nga mën a waxee ne it's a good idea mooy loolu tim xalaat bu baax la li ma la waxoon ne jafe-jafe gi pour nga comprendre ko mooy ci bu ñuy jëf bu ñuy wax ci anam yi ci mbir yi it lañuy jëfandikoo wala daat léegi bu fekkee da bëgg topp ne waaw it bii lan la war a remplacer ci wala nga ne daat bi lan la war a remplacer wax ji moom laa lay wax ne mooy indi complication ba doo ko comprendre ndaxte ci dégg-dégg ngay xamee liñ ci wax maanaam nga ne ma I will come visit you dinaa ñëw seets la léegi ñëw gi ngay ñëw seet si ma moom laa war a remplacer ak it <laughs> wala mu remplacer ko ak date. boo ma I will come man ma bëgg la wax ne waaw loolu dina neex de wala loolu dina baax de wala nga ne wala ma ne la waaw loolu moom bëgg naa ko moom lan lay wax bu mu bëgg a wax ne loolu bëgg naa ko dama di waaw that's good I like that waaw that's good loolu baax na ba léegi I like that loolu bëgg naa ko noonu laa mën a waxee it's a good idea wala it's good I like it mooy bëgg naa lool loolu baax na te bëgg naa ko léegi ñëw gi ngay ñëw seet si ma moom la ñuy remplace ak it loolu nekkul nit. bu ko defee doo wax ni he is good wala she is good wala they are good anamu ñëw gi ngay def loolu la ñuy remplace ak it ak it wala ak that wala nga ne moom mu ngi taw wala climat bi nice na ak lu mën a nekk ci anam yooyu it nga koy jëfandikoo wala that maanaam it raining moo ngi taw it windy day tey dafa ngelaw it's a rainy season maanaam ñoo ngi ci jamono bi muy taw wala it's a sunny day mooy bis boo xam ne bis bu tàng la maanaam jant bi dafa génn loolu yëpp it bi ngay jëfandikoo moom mën na ànd ak daat bi maanaam foo wax it rek mën nga fa jëfandikoo daat waaye mën nga leen a bañ a boole tamit wala nga indi leen ci ñaari phrase yoo xam ne ñooy ànd maanaam nga bañ a wax ne it's a good day ba pare na that is a good day boo ne it rek mooy date mënoon na ko fa jëfandikoo ci subject bi nga siy jublu ak même si object bi maanaam ci complement bi loolu mën a nekk comme ni ma la waxee ne bu ma nee boo ne ma dinaa la seet si ma ne la that's a good idea xam nga that laa wax it that is a good idea su ma bëgg wax ne tamit ne bëgg naa loolu dama naan I like that muy nekk ci complement bi pour nga bàyyi ko xel. dina xaw a am jafe-jafe tuuti rek ci kaw boo bëgg concentré wu ci li ñuy wax lan lañ si jublu dëgg-dëgg nga bëgg a xam ba xam nit la wala du nit bu nekkul nit rek anam bi nu mu mën a demee rek it ngay jëfandikoo wala daat ñu ñëw si yeneen exemple pour nga gën a comprendre. léegi kon gis nga bu ma ne that would be mooy doon na nekk ak it would be beneen exemple bu mu ne it would be ci indi beneen maanaam phrase boo xam ne mooy mooy mooy leeral loolu te ma ne la comme it would be laa wax mënoon na jël that would be comme ma ne doon na nekk ma ni it wut be nice loolu doon na nekk lu rafet noonu nga mën a waxee ne that would be nice loolu doon na nekk lu rafet même bu dee xew-xew boo xam ne weesu na ma lay wan ne loolu boo ko defoon dina rafet noonu laa koy jëfandikoo ba léegi ci loolu mën naa wax ne it could be bokkul ak that would it could be mooy mënoon naa nekk lale mooy doon na nekk bii mooy loolu mënoon naa nekk it could bi comme it could bi better maanaam pourtant mënoon na gën a baax de maanaam mënoon na gën nga def benn affaire bi ma ñëw waaye du waxuma la ne bon na de waaye bu ma la it could be better mooy mënoon nga koo def mu gën su ma jëfandikoo it foofu comprendre nga euh, wala essayer nga comprendre xam ne anam boobu wala situation bi wala mbir moomu laa remplacer ak it su ma dikkee tamit ne na that could be mooy loolu mënoon naa nekk bu ma ne that could be better mooy mënoon naa gën a baax pour nga bàyyi ci xel muy it could be bi mën a nekk that could bi it could be better ba léegi that could bi better léegi ci noonu ñu amaat beneen phrase ba mu ne it will be mooy dina nekk léegi it will be comme ma ne it will be my first day off maanaam mooy nekk bis bi may njëkk dallu bi may njëkk noppalu waaw da ne altine bi ñëw duma liggéey nga ne ma waaw man la waaw it will be my first day off kon moom mooy nekk sama bis bi may njëkk noppalu léegi da ngay gis ne boo ni it bu ma ni it will be mooy dina nekk noonu laa mën a jëfandikoo ne waaw that day will be may first day off maanaam bis boobu mooy nekk bis bi may njëkk noppaloo kon foofu lan la it remplace muy fan bi ci boppam boo mosee benn mbir mu neex nga ne waaw maanaam benn loo xam ne dafa am cafka mu neex ak yow looy wax it's delicious mooy loolu muy lu lu saf la lu neex la si caf ka léegi ni ngay waxee it's delicious noonu nga mën a waxee that's delicious ok léegi ñu complété ko indi yeneen yi nga xam ne mën nañoo ànd ak it ak that ci kaw commencé phrase bi rek junj ko boo xoolee exemple yi mu indi yëpp dama ko junj rek leneen ci waroon mën a toppaat mais li mu bëgg nga xam mooy leneen mën na si toppaat mais li mu bëgg nga xam mooy partie bi ànd ak it wala that ci waxin yi nga xam ne liñ si jublu mooy nekkul nit waaye ci anam la ci gis-gisin ci dégg ci xew-xew ci lépp loo xam ne am na ci àdduna bi comme nii fu ñu mën a wax it will mën nañ fa wax that will fu ñu mën a wax it is mën nañ fa wax that fu ñu mën a wax it was ci past it is bi mën nañ fa wax that was ci past that is fu ñu mën a wax it would mën nañ fa wax that would fu mën a wax it maybe mën nañ fa wax that maybe bi ñu mën a wax it might be mën nañ fa wax that might be léegi ñu tekki loolu benn par benn lan ci jublu bu ñu ko bindee noonu bu ñu nee it will comme nga ne it will be good mooy loolu dina baax wala nga ne pourtant loolu dina yomb de it will bi easy loolu dina yomb mbir moomu dina yomb moo xam loo si jublu rek wala nga ne it will be fast moom mooy gën a gaaw moom mooy gën a gaaw wala nga ne it will be more beautiful loolu mooy gën a rafet it boobu ci barab bi nga ko jëfandikoo mën nga fa jële jëfandikoo that moom itam muy tekki ne loolu dina comme that will bi good that will be better that will be faster wala that will be more beautiful loolu mooy gën a rafet loolu mooy bu fekkee ne ci fii ci bi nga bëgg a jëfandikoo bu dee lu xew nag mën nga wax it is maanaam it's good idea it's good for me it's easy for me loolu yomb na ci man it's good for me mooy baax na ci man ah it's better for me pour man de loolu moo gën a baax ñi ngi jëfandikoo it foofu man nga war man mën nun nga ko mën a jëfandikoo that's easy for me maanaam yomb na ci man wala nga ne that's good for me loolu baax na ci man wala nga ne that's better for me loolu moom moo gën ci man maanaam ci sama gis-gis léegi bu dee ci past bi loolu noonu jëf weesu na li may wax nag lu ñuy junj la maanaam yaay yaay xam liñ si jublu ci activité bi nga xam ne mooy xew bu dee lu weesu la nga ne it was comme nga ne it was ici yomboon na wala it was difficult loolu jëfe woon la la ak jëfe woon ci past bi bu dee that mën nga wax that was easy yomboon na wala that was difficult loolu jëfe woon na moo tax gis nga bu ñuy wax naan dafa seer mooy it's expensive dafa yomb it's ci lan la ñuy wax it mooy li ñuy jublu ci wax jooju ci prix bi wala ci anam bi wala ci événement bi ba léegi boo continuer noonu nga mën a waxee it would would bi mooy doon na nekk lu comme nga ne it would be good for me if I receive the message you doon na baax ci man bu ma jotoon message bi bu ma ko jotoon konoon loolu dina baax ci man comme comprendre léegi it will it would boobu foofu mën nga fa jëfandikoo that would moo tax nga gis ba léegi nii boo it may it may be mooy loolu dina mën naa nekk maanaam it may be your opportunity to get job you know mën naa nekk sa occasion nga am liggéey léegi bu fekkente ne wax nañ la beneen mbir beneen événement boo xam ne wala beneen daje boo xam ne mën nga fa dem su ma la bëgg wax loolu ti mën naa nekk mën naa la mën naa jëfandikoo that may be your first day that may be your first opportunity you know to get a job léegi bu dee li ñu ngéejoo noonu loo xam ne yaakaar nañ dina am weesu na comme nga ne pourtant démb man ñëwuma woon ci réunion ba de man la pourtant nag réunion boobu nga xam ne weesu na mënoon naa nekk sa occasion nag pour nga mën a am liggéey gis nga it might be bu boobaa lay jëfandikoo ndax weesu na ba pare ah it might bi your opportunity wala it might bi the opportunity for you to get job it boobu nag ma jëfandikoo ci mayit be noonu laa fa mën a jëfandikoo daat mayit be mooy loolu mënoon naa nekk lu gëna a yaakaar naa di nga comprendre bu baax li ñu jublu si it ci diggante moom ak daat ci gàttal wax ji mooy lu nekkul nit la te di benn bu dee mbir lu mën a nekk ci situation si gis si dégg-dégg ci lu ñuy jëfandikoo lépp rek dañ siy jëfandikoo it lu bari nga koy dégg ci anglais yi ñu koy jëfandikoo muy it wala daat loolu rek lañ si jublu maanaam wax ci yow fi ñu ko jëmalee comme que nekkul ni rek mën na jël it bu dee benn mën na jël daat bu dee benn ba léegi boo ci amee benn laaj rek ci it wala date wala phrase boo xam ne jotoon nga comprendre la lañ ci jublu ci it bi wala date bi mën nga koo bind ci commentaire yi lii moo nekkoon leçon bi tey ngeen àndoon ci ak Miss ba ci seen YouTube bi di English Class TV thank you bye